ministère bi ñu dénk wérgu yaramu askan wi jaare ko ci service national bu éducation ak information pour la santé ñoo leen di may seen communiqué du jour bu jëm ci wàllu Covid 19. mais maa ngi ci njëlbeen encore di remercier autorité ministère la santé ci opportunité bi ñu jox pour waxtaan ak yéen ci ci wàllu Covid 19 ak maladie rein rénale di profité ci année bu at bu bees bi pour euh, di ñëpp ñu tàllal suñu loxo ñaan yàlla. pour yàlla dimbali ñu ci feebar bu be feebar bi mu jëlee ko fi jëlee ko ci àddina bi yëpp euh, Covid 19 feebar la boo xam ne mu ngi fi depuis plus d'un an depuis mars 2020 euh, bi fi nekkee nag euh, def na fi ay def na fi ay ay ay yàqu-yàqutu yu bëri dindi rotal na fi bakkan yu bëri et vraiment donc surtout nag loolu ñu ngi ko constaté ci ñu ñuy wax personne vulnérable personne vulnérable loolu nag ñu am insuffisance rénale ci lañ bokk. soo déggee incident général nag maanaam danga am incident général dialysé nga am incident général dialysé wala nga amoon incident général ñu transplanté la ñoom ñëpp ay groupe vulnérable la comme que diabétique yi la comme hypertendu yi la comme ñu comme yeneen groupe vulnérable yi donc euh, soo bokkee ci groupe boobu soo defee covid covid bu forme grave en général la ñuy def suñ defee covid bu grave mooy covid yu nécessité réanimation la donc yooyu dañuy saturer service de réanimation yi te li ñu ci remarqué également day yokk taux de Euh, déjà xayma nañ ci première vague bi amoon nañu ñetti téeméer ak presque juróom fukki euh, malade dialysé chronique entre Dakar Ziguinchor ak Thiès ci seen biir cent yi defoon nañ test Covid ci cent yooyu defoon test Covid bi maanaa onze pour cent yi amoon nañu euh, déjà feebar bi léegi loolu nag war nañ ci war nañ ci bàyyi xel parce que. ñun dañoo anticiper woon au niveau de Dakar ñu def service de néphrologie ñu def benn unité Covid pour les patients instantanés yu ñu war a dialyser boobu ak léegi nag jusqu'au 14 août dialyser nañ fa juróom-ñeenti fukki euh, malade donc def nañ 417 séances de d'hémodialyse pour 90 personnes donc euh, ñeenti fukki juróom-ñeenti fukki euh, hémodialysés malheureusement ci juróom-ñeenti fukki nit ñooñu nag ñaar fukk ak benn ñàkk nañu seen bakkan ce qui fait benn taux de mortalité bu 11 pour cent xam nga loolu dafa bari ci juróom juróom-ñeenti fukki nit su ci ñaar fukki nit ak nangam gaañoo ça veut dire que forme grave la ñuy def day dëggal rek li ñuy wax ne groupe vulnérable dañu def forme grave maintenant loolu suñ ko xamee lan mooy pexe pexe bi mooy li fi nekk déjà mesure barrières yi dañu respecter mesure barrières yi surtout nag loolu war na ku nekk surtout ku am insuffisance rénale parce que ku am insuffisance rénale surtout kuy dialyse kii da ngay dem hôpital ñett yoon bi parce que da war a def dialyse ñu ci bari amuñu oto seen oto bopp dañuy jël transport wax naa ko léegi euh, monsieur Xumba mu ngi fii danañ dikkaat dañuy insister toujours si ñoom suñu jël euh, oto transport nañu takk seen masque durant tout le trajet nañu jël gel avant ñuy dugg suñu wàccee nañu jël gel te su ñëwee service bi dañuy insister ñu defaraat leen gel su ñëwee nañu continuer takk seen masque ci biir service bi ñu bañ a xam nga comme salle dialyse bi souvent dañuy bari dañuy miinante dañuy éviter ñuy échangeante seen seen objet personnel yi ñuy toogante ci lal bi di waxtaan ak yooyu yëpp dañ koy éviter nañuy garder distanciation physique bi loolu su weesoo leneen li ci tegu mooy euh, képp ko am insuffisance rénale na nga continuer lu Covid bi warul la tere nga dem sa rendez-vous nañu continuer dem seen rendez-vous nañu continuer di jël seen garab bu ñu changer benn traitement te seen médecin waxuloo ko seen néphrologue waxul leen ko et également nañu éviter garab bu ñu dégg ne baax na rek ñu jël ko parce que soo jëlee garab boo xam ne baaxul de mën na yokk si avancé accélérer sa insuffisance rénale soo waroon dem dialyse dans un an deux ans nga dem dialyse ci weer bi donc war nañu loolu bàyyi xel mu ñu jël garab bu ñu leen bindalul leneen li li ñu li ñuy constaté c'est-à-dire que maladie yi am insuffisance rénale seen signe yi du gaaw a feeñ mën nañ ko amee covid bi yàgg signe bi du feeñ parce que dañoo immunodéprimé donc lu ñu leen di conseiller loo sentir sa yaram teel ko wax sa médecin parce que nag euh, Covid du malade du feebar bu ruslu mbul nangu yow nga bu ko considérer comme ruslu et bu ko nangu aussi nit ñi di la stigmatiser donc di loolu vraiment il faut le refuser parce que feebar la comme feebar yëpp ma jombul kenn mën na dal ku nekk donc lu donc vraiment loolu nañu ñu maintenant beneen beneen euh, pexe bu ci tegu mooy ñu vacciner wu parce que ñun seetlu nañu vaccin bi vraiment malade yi ñu amoon ñu vacciné wu bi ñu amee Covid bi vraiment forme yu légère la ñuy def vraiment la la plupart du temps forme yu légère la ñu def parce que et puis vaccin bi vaccin bi ak lu ñu ci mënti wax ñun ci en tout cas li ñu ci jàngat ak li ci gis vaccin bi il est il est bien toléré parce que euh, sur cinq cent malades yi nga xam ne juróomi téeméer yi nga xam ne ñu ngi koy jël si euh, à Dakar presque les deux tiers les deux tiers maanaa ñetti téeméer yi ak juróom fukk yi vacciné nañ yi vacciné wu vraiment dañoo pré dañoo anticiper woon ku nekk kuy vacciné dafa la fiche de suivi pour recueillir effet secondaire bi on a remarqué aucun effet amul benn effet secondaire bu grave tout au plus li ñu ci am rek naan suma yaram day métti dama xam ne voilà dama euh, su dama tayal insulte mais amul benn effet secondaire bu grave donc la vaccination ci patient yooyu vaccination bu toléré bu bien toléré la amul benn effet secondaire grave en tout cas jusqu'au jour où je vous parle ça vraiment c'est un suivi bu def ci maladie jot a vacciné léegi bon nañu dem vacciné loolu am lu ci am solo la c' est extrêmement important maintenant li ñuy wax peut-être loolu danañ discuter autorité ministère yi de la que comme hémodialysés yi bariwuñ motuñu cent mille personnes au ñu produire ci anticorps par rapport à la population générale moom moins de c' est normal c' est attendu parce que dañoo immunodéprimé peut-être leen defaloon troisième dose dana leen gën a mën a aar kooku nag ay waxtaan la c' est benn suggestion bi ñuy def donc pour parer vraiment ñu ngi ñaaxaat suñu mbokk yi surtout ñu surtout ñu am feebar roño nañu gën a góor góorgóorlu xam ne Covid 19 feebar bu am la kooku amul benn lam-lame Covid 19 ku mu ku mu faagaagalool sa sa rakk wala sa mag wala sa frère au moins faa gis nga do dëkk nga boo xam ne gis nga ku mu donc kooku kenn mënut ko weddi ndax am na amul loolu moom vraiment wees nañ ko maintenant léegi am na li mu feebar la boo xam ne dafa gën a garaaw surtout su fekkee yow. da ngaa vulnérable surtout soo comme soo amee insuffisance rénale donc lu ciy pexe nañu vacciné wu nañu vacciné wu benn nañu respecté mesure barrière yu ñu wax loolu vraiment suñ ko defee mën nga parce que soo ko defee da ngay musal sa bopp musal sa sa sa sa dëkkandoo musal sa waa kër et puis da ngay da ngay da ngay suuxatal sa réew da ngay xaw ma da ngay tax sa réew yëkkati ko xaw ma donc loolu day ah, day loolu baax na sax ci réew mi parce que xam nga ne Covid 19 euh, feebar boo xam si le plan économique ay catastrophe lay def mais soo soo ne yow vacciné woo nga am feebar bi soo wallee nit lu ko ci dal am nga ci de part euh, indirectement indirect euh, ou directement responsabilité mu ngi mel na nga taal daay rek ku daay daay nga yëg koo nga bañ koo yëg conséquence daay bépp am nga ci responsabilité donc nag kenn warul nangu di di am responsabilité ci ci ci feebar nit ci ci faagaagal nit wala ci leneen parce que rek euh, dégg nga ñuy wax su léegi am na fii ministère a ngi fii ñu ñëpp a ngi fii information boo bëgg jot mën nga ko am ci anam yu leer vraiment encore une fois ñun ñëpp nañu nañu taxaw ndoo xeex feebar bi xeex feebar bi encore une fois mooy respecter mesures barrières yi deuxièmement mooy ñu ñun ñëpp ñu àndandoo vacciné wu euh, wasalaam ñu ngi leen sant di leen gërëm. bu leen fàtte aimer ak it partager ci seeni réseaux sociaux.